ndaje mi ndaje mu am solo la jël nañ fi raay yu ne waaye ndaje mi li tax mu am solo mooy athlétisme cër bi mu am ci tàggat yaram ci réew mi ak jafe-jafe yi muy dund nit nag bu nekkee ne lu ku am cër nga bay dund ay jafe-jafe ba dem ci compétition andi lu mot ñeent fukki médaille fukki médaille door ak fukki medaay d'argent ak juróom-ñaar ak fukki médaille ak benn ci bronze loolu day andi mbégte ci képp koo xamante ne bëgg nga tàggat yaram surtout ñun ñi nga xam ne ñoo fi représenté le président de la république moo tax bi ñu ñibbisee ñu ne la nag leen andi su ko defee ñu gërëm leen ci turu njiiti réew mi ci taxawaay bi ñu am mais gërëm leen yéen ñi nga xamante ni yéen mag ñi nga yéen leen tàggat yéen a leen encadré yóbbu leen ba ñu mën a am ndam li andi ko duñu ko présenté kon dañuy gërëm ndaw ñi ci seen taxawaay di leen ñaax ñu gën a continuer ci loolu parce que nag liggéeyal sa réew jar na lu ne défendre couleuru sa réew sacrifice boo ci def rek jar na ko ci biir waxu président bi nag dégg naa mu ne amoon na ay jafe-jafe ci tukki bi fanaan ci aéroport yi euh, daanaka loolu mënul ñàkk ci li nga xamante ne mooy Afrique dëkk yi doole bi bariwul li ngay yéene yëpp doo ko mën def waaye dinañ wax suñu service yi ñu gën di xool comparer yoon yi ba xam ban yoon moo gën a noppale ci bu ñuy tukki ñu mën a rectifier lu mel noonu waaye di leen wax it ne yàgg nañ leen di beral loxo ci lu tuuti li ñu am ci koppar di leen ko jàppale pour que athlétisme mën di fonctionner gannaaw effort yi ngeen di def xam naa ne yéen a ngi ci def effort yu bare bari Sara Waly xam naa ko suñu xarit la xam naa ne mu ngi def sacrifice waaye nag euh, moo bugg falu it dëgg nag moom mooy loolu président fédération yi. dañ leen a fal kenn tëddu ci sa lal nag ñu fal la da ngaa yor sa projet pour ñu fal la kon promotion bi yaa ko yore équipe nationale yi nga xam ne ñooy dem nag ci senior yi ñun ñoo leen di jàppale loolooy règle mais ñu ngi def ay exception léegi moo tax ngeen mën a dem Nigéria ci condition yi ngeen demee di def exception ci yenn discipline yi pour mën leen a jàppale bët du yenu waaye xam na lu bopp attan ministère des sport mënut a gérer l' ensemble des lu ñu bëgg ñu def ko ci wàllu koppar ñi ñu ko jox ñoo war a dox uti ay partenaires jaay produit ba mën a am lenn ci koppar yi mën a jàppale seen discipline. loolu nag tekkiwul ne dinañu leen seetaan parce que athlétisme dañu jël décision jàppale leen ba athlétisme yeggaat fi mu yeggoon parce que benn discipline gënu ko rëy ci réew mi moo tax bu ñu amee ndaw ñu am xarañte ni kenn du leen bàyyi dinañ leen jàppale te instruction yi naa ko pour ñu mën leen a gën a jàppale. président de la république xam na ne it wàllu infrastructure am na lu ci sooxe moo tax ñu ci jeux olympiques yi nga xam ne moom la ñuy waajal war nañoo defaraat li nga xamante ne moom mooy Ibamar ak piste bi mu war a am bu ñuy defaraat la Léopold Senghor piste dana nekk le 22 février 2022 aussi di ngeen gis piste fii ci booru stade du Sénégal parce que président dafa décidé génnee piste d'athlétisme bi ci biir stade bi defaral leen loo xam ne yéen a koy moomal seen bopp pour que ngeen mën fay def tàggat yaram di fa mën def athlétisme ni mu waree. defe naa nag njiitu réew moo xam ne am na engagement boobu li ci des mooy rafet njort ci lu ñëw gën a góorgóorlu ñu gën leen a jàppale ngeen wuti ay koppar aussi su ko defee loolu lépp bu ñu ko dajalee athlétisme dina gën a dem ci kanam kon ñu ngi gërëm bu baax ndaw ñi ci seen médaille yi di leen félicité eh, di leen promettre ne dina leen gën a jàppale xam naa tout le monde me regarde moi euh, parce que cette réception ne peut pas être comme ça euh, À la limite, on fera des sacrifices que j'annoncerai à, à Sarawali. Ça sera une participation personnelle pour pouvoir accompagner les médaillés. Je précise, les médaillés. Non, il faut que ça soit très clair. On est 40. Je ne vais pas distinguer les médaillés d'or et les médaillés de bronze. C'est des athlètes qui ont eu des médailles et ils sont traités de, seront traités de la même manière parce que ça sera une mesure exceptionnelle. Et euh, je vais voir avec mes services ce qui est possible et puis on vous communiquera et vous ferez la remise à ces jeunes véritablement qui méritent d'être accompagnés. Ça, c'est un engagement que je viens de prendre tout de suite.